ne saa yoo wax ci say soxla muus mi na ci kër gi ne saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci gone kër gi ngóore ngóoro belay ngóore waay waay koor tigi tigi tigi refu o koor kaari faa ngore ngoro belay ngore kare fa ko kor gona ko kon kan le Sénégal. mbokk yi ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futur Média euh, di leen ñaanal jàmm di euh, sàkku tamit ñaan ci yéen alors tey nag euh, dañoo génn tuuti Dakar ñi ngi fii ci département de Mbour plus précisément ci commune bu Diass xam ngeen ne donc département bu Mbour 16 commune la ci 16 commune yooyu nag dañ ci tànn benn pour def ak yéen émission sama kër la ko waral mooy xam ngeen ne euh, commune u Diass Diass boppam nekk na léegi commune bi nga xamante ni ku nekk mi ngi fii rek daal di ut suuf loolu nag daal di euh, kon gën a euh, kon aiguiser un peu suñu suñu donc appétit jëmee ko ci wàllum information mais aussi depuis ba président de la République daal di donc inauguré TER bi nekk fii ci aéroport bu Diass daanaka léegi dafa nekk li nga xamante ni léegi ñëpp ci rek daal di bàyyi xel moo tax nag tey ji mbokk yi dañuy ñëw tànn waxtaan ak maire bu Diass ñu daal di def un peu une cartographie donc de la population jéem a xam jas euh, fii nii euh, ñaata nit ñoo fii rek euh, daal di yeewoo mais aussi xool suuf bi fu mu rek daal di toll bu ñuy wax si wàllum litige jas am na ci euh, lu bare bari dinañ waxtaanee ak maire bi xooloole yëpp nag nan lañ ko mën a rek euh, daal di euh, moytandikoo mais surtout comment faire pour créer de nouvelles villes yi nga xamante ni dina bàyyi xel lu bëri bëri ci wàllum aménagement ak ci wàllum environnement alors tey waxtaan la ci diggante ñun ak maire bu jas di Mamadou Dione seen émission sama kër ay ginaar gi baax na ci kër ne salaamaaleykum ça va bien monsieur le maire ça nga def ça bien monsieur le maire na nga def ça va bien ça va ça bien merci ça va. mais saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla. gan gi baax na ci ma. alors euh, euh, mbokk yi di leen gërëmaat bu baax euh, ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futurs Médias sànq wax naa ko nee naa leen tey nag ñu ngi fii ci jas jas nag bokk ci département bu Mbour peut-être nu mu jege peut-être yenn Rufisque ak yooyu noonu ñoom bar ñi moo tax yenn saa dañuy am jumte ci wàllum localisation bi mais ci biir département bu Mbour la bokk région de Thiès n'est-ce pas c'est bien ça monsieur le maire. waaw waaw jërëjëf loolu la waaw ñun ñooy département buntu département du Mbour euh, tey bu ñuy xayma ci wàllum superficie tey jas si ñaata lañ ko mën a mën a xayma bon jas euh, mu ngi tourné ci 103 kilomètres carrés mhm. euh, boo ko doon xayma day mel ni nga jël le département de Dakar mhm. maanaam les 19 commune d'arrondissement de Dakar jas noonu la toll boo ko dajale ah ok donc c'est 103 kilomètres carrés 103 kilomètres carrés d' accord euh, euh, sànq maa ngi doon wax ci ci ndorteel gi ne il faut ñu comprendre un peu euh, ñan ñoo fi ñan ñoo fi ñan ñoo fi dëkk ci ci cosaan ñan ñooy ñan ñooy borom Diass ci cosaan. waaw ci cosaan Diass ñu ko sànc mooy séeréer saafeen mhm. yi. bon séeréer boo xoolee ñu ngi jóge Égypte. Mhm. mille ans avant Jésus-Christ bi empire romain ñëwee dal ci kaw Égypte. Euh, à la moins trente avant Jésus-Christ ci lañ fa jóge euh, traversé Sahara bi yëpp ñëw Tekruur sa dëkk yow. waaw Tekruur tamit ñu toog fa mu yàgg ñu jóge fa. Mm. ñëw Jolof. waaye bañ jógee Jolof nag ñu ak lébu yi presque ñoo fa jógeendoo ñëw nag ci petite ak grande côte bi yëpp mm-hmm. donc séeréer saafeen yi ñoo ko sanc mm-hmm. mais nekkuñu jës rek ñu ngi aussi dans d'autres communes environnantes mm-hmm. alors euh, lu tax ma laaj ko mooy tey nag pël la tey bu ñëw fekk si ay ay euh, ay jaamam wala tey <laughs> wala tey ñu wax contraire bi donc euh, une population bi nga xamante ni ñoo mun nañ ko wax sanc bi ay ay séeréer lañu mais tey jas dafa nekk commune bi nga xamante ni commune bu am doole la dafa commencé am doole ci wàllum population est-ce que recensement yeeg yooyu noonu euh, wane na à peu près euh, ñi nga xamante ñoom ñoo dëkk dëkk Diass. waaw euh, recensement général de la population bu mujj bi. Mm. vraiment bu 2013. Mm. daf ko xaymoon à un peu moins de quarante mille habitants. Mm. bon mais xam nga boo xoolee ak évolution démographique gu Diass. liée entre autres à la pression foncière. Euh, xam naa recensement bi nekk en cours dina ko gën a mais man ci xayma je sais que dinañ dépasser facilement les soixante cinq mille. Hmm. habitants euh, mais on verra ce que donnera le recensement le voilà mais loolu daal parce que y a quand un boom démographique te boo xamante ne. ñu bëri daal ñu ngi converger vers Diass. moom la ñu moom mooy euh, maire bu Diass tey wax naa ko lu iy wundu waxtaan bi moom mooy. Euh, wax na ko boom boom démographique bi nga xamante ne ressentir nañ ko euh, ci biir Diass li tax aussi mooy euh, wàllum suuf bu ñu koy rek xool di ko xayma Diass bokk na ci zone yi nga xamante ni moom mooy zone yi gën a prisé parce que wax nañ ko moom mooy porte kon département bu Mbour tey jii nii loolu na ngeen koy dundee waaw ni ñu koy dundee ñëpp di leen waaw ni ñu koy dundee déjà. Mm. nee naa le quotidien de maire de Diass. Mm. question foncière daf ciy jël lu bëri. Euh, parce que boo xoolee ya a déjà les grands projets de l'État il des zones yu État titré. Mm. Euh, que liées également à la politique de l'État comme Daga-Kholpa. comme zone économique spéciale. que même le port de ndayaan port Ndayane yooyu yëpp. donc il y a des titres fonciers de l'État dans la commune en plus maintenant il y a le domaine national bi nga xamante ne ci la commune am compétence. donc euh, li ñu koy dundee mooy c'est une pression euh, liée un peu au développement de Diass mhm. parce que commune bu aéroport international Blaise Diagne ah, nekk surtout pooru Ndayane nekk fa mhm. <laughs> la plus grande zone économique euh, la plus grande économique euh, du pays euh, nekk fa am aéroport am zone économique spéciale am aussi le pôle urbain d'Agafolpa c'est normal qu'il y ait cette pression foncière autour de Diass mm parce que il y a des projets de l'État yu mag yu fi nekk mais mairie bi également day intervenir ci domaine national. Mhm. mais mais par contre li ñu gis euh, tout autour ci pooru ndaayaan bi même euh, yenn yenn terrain yu ñu ne euh, que nekk dafa nekk à proximité de l'aéroport quand même yooyu aussi c'est dafa dafa dafa abusé ay ay njëkk yi nga xamante ni voilà dina dépasser presque cinq jàpp dix millions ci ay terrain de deux cent trois cent mètres ci zone boobu noonu yaakaar naa ne loolu aussi dañ ci war a bàyyi xel. waaw xam nga les spéculateurs toujours. dañuy anticiper bon quant il y un grand projet de l'État quelque part <laughs> c'est normal que ñu mm. bëri ñu ñëw jéem a anticiper pour jege si jege si parce que tout simplement c'est des choix yoo xamante ni ñenn gi dañ koy def mm. euh, pour investir sur le long euh, mais loo ci mënti wax moom Diass quand même c'est une zone euh, d'attraction c'est une zone boo xamante ne li eh, ñaan ñaan bu nangu sonal borom. Mm-hmm. <laughs> ñaan bee nangu rek. boo mm. tax affaire yëpp ñëwandoo eh, en un temps très record. Mm-hmm. voilà ce qui fait que c' est normal. mais mais mais justement euh, wax nga ko ñaan la euh, bu dajee ak gestu ñaan la bu nangu. Mm. Euh, mais tey jii nii la woon woon ni na. Mm. donc parce que nit yi ñi ngi bëgg di génn Dakar di ñëw di investir sur foncier bi. ci zone yu mel nii Diass ak yeneen zone mais tey jii nii. Euh, yan yan euh, yan yan jafe-jafe yéen ngeen di jànkuwanteel euh, ci wàllu ci wàllu suuf boobu noonu. kon mm-hmm. wax nga ko spéculation bi généralement du ci du ci sax mairie bi. Mm-hmm. mais ay particulier la. Mm-hmm. mais yéen au niveau de la mairie naka ngeen di def ba encadrer loolu. voilà le challenge challenge bu mag bi yëpp foofu la toll. parce que xam nga Diass dafa jóge ci ruralité di dem vers l'urbanisation. à cause de ces grands projets. état en général buy ñëw. dana am ay schéma ay plan directeur de choses yoo xamante ne dina tegu ci yoon mais maintenant collectivité locale bu comprendre loolu ba teel wut un PUD un plan d'urbanisme de détail boo xamante ne day jëlale en compte ces grands projets bu boobaa anarchie mën na am moo tax ba ñun au niveau de la commune de Diass bi nu ñëwee li ñu njëkk a def mooy l'état des lieux de tout ce qu'il y comme foncier ah. ñu dugal ko dans une application par exemple registre foncier yi ma fi fekkoon yëpp dañ ko saisir ci benn application pour que mën a déjà li fi jot a nekk ba amoon ay nit ñu ñu ko jox ñu mën ko di vérifier ensuite na on a fait l'état des lieux au mm. plan foncier xam titre foncier yi fu mu yaayam fa la domaine national lan moo ci des et cetera mm. sur cette base maintenant ci lañ commencé defar des plans yoo xamante ne qui répondent aux normes d'urbanisme mm-hmm. ndax norme d'urbanisme moom parce que plan mooy jiitu tabax c'est ça plan mooy jiitu lotissement mm-hmm. defar plan ba ñu valider ko ba plan bi jaar yoon moo war a jiitu même terrassement mooy jiitu lotissement mooy jiitu construction te plan yooyu c'est les communes ñoo ko war porté bu dee ci domaine national la. c'est te communes yi bu ñu ko porté dañu war a jëlaale en compte les projet projets d'état keroog par exemple benn exemple laay joxe keroog le tracé de euh, bu oléoduc bu mag bi war a indi gaz bi. keroog on a reçu une équipe boo mm-hmm. xamante ne daf ñu doon ñu waroon xool fan lay jaar. Mm-hmm. yooyu boo ko teelul jël en compte ci say lotissement c' est sûr que ça va rattraper. directeur yi ñuy wax généralement moom moo war a am ci commune maintenant à côté des plans directeurs y a les plans euh, d'urbanisme de détail. Mhm. ah yoo xamante ne da nga koy defar. valider ko au niveau ministériel. de mhm. telle sorte que moment bi ngeen di def ay lotissement mhm. day fekk ña ngay jox kayit. da nga leen koy jox sur des bases yu claires. xam ne même bu amoon délibération après mën na wut bàyyi. mën na wut titre foncier. dans la ak opération sama kayitu kër. des mm. trucs de facilitation yooyu yëpp nga ci mën a engouffré wu. moo tax défi boobu. Mm. on est de le relever. avec la validation progressive de beaucoup de plans. Mm. au niveau ministère sauf que mu ngi sàkku rek mu gën a bar. mu gën a bar waaw ndax jas lépp a bar. waaw mm-hmm. lépp bar donc foofu lañ toll. mais euh, sànq yaa ngi wax plan d'urbanisation yeeg yooyu je pense que ANAT ñi ngi liggéey ci lu am solo muy visa de localisation bi euh, loolu dina gën a tax euh, lu jëm ci wàllum gestion wu suuf bi ñu mën a régler yenn jafe-jafe yi mais ba nga ñëwee def li nga xamante ni moom mooy constat bi. liggéey ci fichier bi nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum suuf euh, je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle de dire que euh, amoon na ay jafe-jafe yi nga xamante ni peut-être euh, gis nga ko ci biir distribution wu suuf bi su ma ne distribution mooy ñi nga xamante ni ñoo ñoo yor wàllu suuf bi yan yan façon jafe-jafe lañ lañ ci gis. waaw balaa ma jafe-jafe yooyu sax mm-hmm. anaat boobu nga wax. waaw am na convention bu ñu war a signé ak ñoom. Mm-hmm. ndax conseil municipal autorisé nañu ko parce que effectivement c'est un bel outil boo xam ne dinañu Euh, jafe-jafe yi bëri na daan nga gis léeg sax benn suuf soo xamante ne ñaar nit lañ ko gars yi attribué woon mais yooyu application bi ñu mettre en place daf koy détecté. Mhm. donc nit ku ñëw di. vérifié soo xasee ba dugal sa tur sa carte d' identité danaan la. voilà dina la wax ne la délibération bi nga yor. Mhm. est ce que yow rek yaa ko moom. bu dee doublon am na ci dañ la ko signalé. Mhm. bu dee aussi dafa empiété ci titre foncier état dinañ la ko wax. bu dee également newul woon ci registre bi jër les équipes précédentes enregistré wu ñu koon dinañ la ko wax. Mm. bu ci nekk nag ak traitement parce que ñun bëgguñu nit ñi jël litige yëpp dem atterrir dans les tribunaux litige yëpp dem di atterrir dans les gendarmeries et cetera. Mm, mm. moo tax y a une démarche pédagogique bu ñu mettre en place pour que yenn litige yi nga xamante ne mën nañ ko régler. en interne ñu régler ko. avant que ñu koy surcharger les. les tribunaux les yooyu. Mm-hmm. bon yoo xam ne nécessairement dina egg foofu mais li solo mooy. une collectivité locale da ngay jàppale sa askan déjà. Euh, bi nga xamante ne ñoo dëkk ci dëkk ba pour ñu mën a am accès. au foncier accès au logement. loolu nekk une super mais en même temps dangay ngay jëlaale en compte l' avenir. Mhm. mooy suba mairie buy dund ci yan recette la war a dundee. Mhm. parce que c' est pas seulement le logement il a également les équipements. c' est ça les services sociaux de base. Euh, fan la demee la mhm. zone industrielle de Diass war a nekk. la zone logistique. les gares routières. yëpp jël nañ ko en compte mhm. dans le cadre des plans que nous soumettons au ministre. Euh, en fait euh, damay ree tuuti parce que ba ngay wax loolu maa ngi naan ñun de bu ñuy bu ñuy wut suuf. Mhm. du ñu xalaat équipement du ñu xam ndax foofu am na marché. du ñu mhm. xool ndax am na école wala am na dispensaire ndax prévoir nañu gendarmerie. te ci plan de lotissement yi loolu c'est une obligation dañ ko ci war a def bu nekkee am na benn superficie bu nga xamante ne dañ ko war a lotisser. mais maire yi moo ko war a sàmm. maire yi ko war a sàmm ba kenn du ko dagg di ci def leneen. warul am détournement d'objectif. équipement équipement la maintenant collectivité locale moo koy jox vocation en bonne intelligence avec l'État avec également les populations mm-hmm. ba tax na loolu moom dañ ci xaar suñu tànk tuwe mm-hmm. bon parce que par le passé daan nga gis beaucoup de collectivités locales gars yi dañuy jékki-jékki place u jàkk yeeg jumaa yeeg marché yi ñu et loolu baaxul parce que dëkk xëy la ñuy wax mm-hmm. xëy dëkk mais en même temps dund fa nga dëkk nga épanouir fa say doom mën am basket fu ñu basketee fu Euh, fu ñuy jullee. c'est un cadre de vie. c'est un cadre de vie donc mm. loolu yëpp dañ koy jël en compte déjà l'existant am na ci ay jafe yu bëri yoom ñu ngi koy corriger ndànk-ndànk. et et dañ ciy communiquer avec les les les populations te yaakaar nañ ne ñëpp dinañ ko comprendre il y a aussi le problème de des quartiers traditionnels. c'est ça. yooyu aussi politique bi ñu ci am mooy dans un rayon de 500 mètres autour des quartiers traditionnels on propose un plan. de mais loolu est que neex naa quartier traditionnel yooyu concertation par exemple dañuy ñëw ñu ne rayon 500 mètres yi wër quartier traditionnel bi on leur propose un plan euh, de restructuration valider ko ak ñoom buñ ko valide quartier bi chef de quartier bi chef de village bi ba ñu ne d'accord nañ ci ñu doog ko déroulé mhm. te vraiment quartier yi nga xamante ne jot nañ leen ci jot nañ leen ci sollicité ñoom ñëpp yombalal nañ ñu ko te incha allah les mois à venir dañ ko baral parce que développement gérer c'est prévoir waaw ñun tey ji nee naa le maire de Diass dafa war a liggéey pour le maire qui sera là dans cinquante ans waaw le maire qui sera là dans cinquante war na fekk ay avenue yu mag war na fekk ay béréb yoo xamante ne dina ci am recette municipale donc ci loolu la ñuy liggéey war na fekk également des populations yu gis seen bopp. Mhm. Euh, ci ci liggéey ci loolu la ñuy wax créer des villes intelligentes. yi nga xamante ni dina mën a euh, donc euh, dox ci ci ay ay jamono. def ngeen état des lieux jafe-jafe yi wax nga ko léegi yi fi gënoon a bari wut ngeen ay solutions mais tey lan mooy xayma suuf bi ci ci ci fii ci Diass est-ce que des na leneen li nga xamante ni dañ ko mën a exploiter wala foo xamante ni dañ fa mën a créer beneen dëkk pour mën fa dëkk. waaw euh, y a des poches euh, domaine national bi am na lu ci des mais surtout euh, su ma jëlee dagg xolpa par exemple projet dagg xolpa état prévoir na ay zone d' extension mm. yoo xam ne daf koy jagleel askan bi mairie bi war ko piloter avec askan bi xool nuñ koy nuñ koy aménager mm-hmm. sans compter également que ci domaine national bi y encore de des réserves bon am na ci wàllu woo xamante ne dinañ ci waxtaan ak kilifa gu mag bi mm-hmm. loolu waxtaanu biir néeg lay doon parce que jas mm-hmm. quand loo ci mënti wax les grands projets jël na lu bëri jas waaw mhm. jël na lu bëri jas euh, am na daal waxtaan yoo xamante ne dinañ ko def proposition dañ ko proposer l'autorité mhm. euh, au niveau au plus haut niveau pour que ñu gën a euh, yaatal mhm. yaatal boobu c'est possible mooy extension wu mm. jas waaw waaw y a des zones quand même su ma jëlee la forêt classée am na lu ñu fa mën a euh, jëlaat mhm. loo xamante ne mën na ci am une partie pour am ne vocation agricole lay doon euh, benn wàll loo xam ne mën a nekk vocation pour def l'extension des villages su ma jëlee par exemple village bi ñuy wax Buxu ak Paaki mhm. ak même quartier bi ñuy wax Saakirak zone économique dafa ñëw nekk euh, seen digg d'accord naa village yooyu am nañ ay souci d'extension Mm-hmm. voilà alors que forêt classée bi zone économique implantée wu das na tuuti. Mm-hmm. te xam naa ne njiitu réew moom. si ci waxtaanee mooy dëkk bi daal dañ a dañ ko war a xoolaat voilà de façon mm-hmm. yooyu am na ci xamante ne kilifa gu mag bi nga ko mën a waxtaanal. Euh, parce que quand même c'est c'est c'est c'est disons c'est interministériel. voilà boo amee sujet yoo xamante ne day laal ministère yu bëri. ministère yu bëri il faut ñu toog waxtaanee ko da waxtaan ak kilifa gu mag bi. bu ci jubóo bu ci joxe ay orientation rek. la mise en œuvre après day gën a yomb. parce collectivité locale maire mooy demande maire yi mooy demandement état mais moo gën a jege population. c'est donc le ressenti bi population yi di am maire moo koy njëkk a yëg. Dakarlo pas moom patate chaude la moom ci yéen. moo tax ba <laughs> actuellement ñu ngi liggéey ci zone d'extension yi te bu ñu demee ba cerner ko. Mhm. parce que le président a fait un décret ah. pour wax zone d'extension yi ni muy demee mais li ki des rek. mise en œuvre la. voilà mais ci mise en œuvre boobu nag population yi. Mm. il faut que quand même ñu gën leen taxaw. ci mm. fànn yi c'est la base. voilà te te ñu ah, ngi ciy liggéey communautaire voilà waxtaan communautaire boobu noonu il faut que muy am. voilà et je mm. pense qu'on est sur la bonne voie. parce que quand jëlaale en compte les préoccupations. parce que état moo mën a def yenn projet yu mag yi. déjà assez ndax foo dëkk di nga bëgg assainissement di nga bëgg ndox di nga bëgg courant te ci kan nga koy séntu ku dul donc moo tax qui a mis en place d' ailleurs waa Safru pour ñu mën a euh, donc euh, aménager. Hmm. Euh, ñoom tam ñuy def liggéey bu bu am solo mais li nga wax dafa tamit am sens. Euh, dans la mesure où ay askan moo leen fekkee ñu implanté wu ba pare donc waxtaan communautaire boobu noonu dafa baax pour mën a defar defar defar dëkk bi. Euh, parce que ñoom bu ñu ne déedéet rek. Euh, voilà dina am leneen li nga xamante ne moom moo ci tegu. Mm. te waxtaan boobu je pense que maire yi mën nañu ko mën nañu ko porter bu baax a baax par rapport au projet d'état bien entendu. absolument absolument mm-hmm. parce que xam nga maire mooy li may wax rek maire yi dafa créer jonction mm. entre les politiques publiques. ak les politiques à la base. Mhm. Euh, ñun au niveau de la commune de Diass on a la chance d'avoir un conseil municipal bu xarañ bu yaatu. on a aussi la chance d'avoir de beaucoup de cadres dans la localité ñii ñu ngi liggéey au domaine. ñii ñu ngi mhm. en ancien gouverneur sax am nañ ko donc ñoo ñëpp dañ leen mettre en à contribution. dans cette réflexion stratégique. Euh, voilà te incha allahu Diass moom maa je sais que ñaan bee nangu rek. même sunu maam yi bu ñu daan fecc ñoom ba léegi feccu séeréer saafen dañuy tàllal loxo yi uh-huh. boo comme ni avion yi di atterrir <laughs> ba ñu am aéroport xëy na c'était prémonitoire <laughs> le port aussi uh-huh. ñëw parce que port Ndayane boo ko waxee uh-huh. euh, li mu impacte même Diass en terme quand même de sur la partie off dock euh, partie boobu moom Diass la gën a impacté mais yooyu yëpp nag buy ñëw commune dafa war a développer ce qu'on appelle des projets opportunistes dans le bon sens maanaam yii di ñëw yëpp bu ñëwee suba ñun commune lan lañ. ci lan ci ngeen ci am waaw ñun mhm. population lan lañ. ciy tiré c'est impact bi impact bi te yooyu yëpp ñu ngi ciy réfléchir. Mhm. demain il faut qu'il y ait une zone logistique. war naa am une zone de service. Mhm. suba les grandes marques du monde comme yi ngay gis à Dubaï un peu partout bu waree ñëw jas fa lay taxaw. bon parce que boo nekkee port ak aéroport nga jege ko en économie y a les économies d'échelle. bon maanaam. implanté wu fu sorewul port ak aéroport. Mm. yaay say coût day wàññeeku. Mm. say charge day wàññeeku. waaye nag ku fi ñëw nag di nga wax ak ñun. Mm-hmm. employé suñuy jeunes. c'est ça côté <laughs> euh, ah ba ñu bokk ci liggéey bi. Mm-hmm. ensemble di développé dëkk bi développé dëkk bi. Uh-huh. Mm. alors euh, euh, li ñu cërale woon ci waxtu xam naa ni ci des bariwul tey jii nii ban yoon nga nga mën a nga mën a conseiller wala nga mën a tàllal ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg ñëw dëkk si Diass. parce que da ngay gis ku toll fële Dakar xamul dara ci jas ne man am naa suuf jas dama koy jaay nii ak nii ak nele donc euh, yéen ñi fi dëkk yéenay borom dëkk bi noonu lañ ko mën a waxee tey euh, ñi nga xamante ni dañoo bëgg a ñëw euh, dëkk ci jas fan lañ mën a war a mën a jaar pour mën a am li nga xamante ni lu wër la tu lu wóor waaw déjà ñun procédure bi ñu mettre en place mhm. de contrôle bi ci jiitu mooy PV de vérification mhm. tey ji même nit bu la wanee këyit wala këyitam ne këyit bi maa ko moom kaay ma ko boo ñëwee ci mairie Guest dinañ bu ñu la ko vérifier nañ la wax ndax baax na mu mm-hmm. vérification automatique. automatique d' accord. première étape procédure bi mooy PV de vérification te PV de vérification bi dina la leeralal tout de suite ne la est ce que kayit bi am na du doublon wala déet. Mm-hmm. maanaam bu dee dañ ko joxoon keneen joxaar bëgg la jaay di nga xam. est ce que kayit bi mu ngi ci titre foncier état waaw wala déet. bu fa mm-hmm. nekkee ñu ne la déet foofu ki koy jaay moomu ko. ndax état titré na ko ba noppi. c'est ça bu dee newul woon ci registre bi ñu ne la def def ci ndànk. bu vraiment mën nañ la rassurer mhm. voilà accompagner la euh, te même dans cet accompagnement procédure bi ñu mettre en place euh, sous préfet dina ko valider après acte bi ñu lay jox donc ñu accompagner la ba ci même demain boo amee opération sama kayitu kër mhm. nga mën a am sa bail wala sa titre foncier mhm. mais li may conseiller nit ñi mooy euh, dajeeg ni rek mu jaay la kayit nga ñëw jënd ko ba pare fekk baaxul alors que boo ñëwee ci mairie bi mën nañ la ko vérifier la Euh, mais loolu ça a été un travail de longue haleine ndax mm. xale yi saisir nañ parce que pendant euh, huit mois. Mm. ci benn application boobu ñun ñoo ko développé suñu bopp ñun mairie Diass. xam naa sax ah. après nañ ko jaay yeneen maire yi. ah oui loolu ñu may leen ko. <laughs> non may leen ko. <laughs> mais daal est une application qui nous permet de d' être la prévention. Mm-hmm. balaa litige di En tout cas, c'est important de voir que, que, les mairies maintenant sont à l'heure du, du, numérique. Mmh, hein? Et il est vraiment en phase avec les nouvelles techniques de communication. Mmh. Euh, Lolo aussi, il failli euh, permettre donc euh, Niti, euh, rassurer. En tout cas, département bu il y a quelques années, ak département ren Rendi, fi ñu de nii wute na di ñaan yàlla mu gën a développé mmh. ñi nga xamante ni ay waliyaan waliyaan si lañu si benn man mmh. ñu mën aussi ñëw bokk euh, ci euh, dëkk bi mais surtout ñu teg mécanisme yi nga xamante ni dinañ mën a créer des villes yi nga xamante ni c'est des villes qui vont durer dans le temps et comme ni ñu koy rek waxee monsieur le maire. absolument euh, comme ni wax rek nee naa leen jas moom ci locomotive bu Sénégal la bokk. Mm. ci locomotive yi. Mm. parce que port ngi fi aéroport ngi fi ak yeneen yi donc li ci des rek moom mooy def un travail boo xamante ne. askan bi gis dinañ ci gis dinañ ci gis seen bopp. Mhm. sénégalais yi gis ci seen bopp mais ñu def ko dans un cadre concerté. Mhm. waaw ñun daal ci loolu la ñuy liggéey parce que tey boo demee Paris nga gis yoon yi ni mu jaaree yoon. Mhm. di nga gis ne Haussmann am na lu mu ci liggéeyoon. le baron de Haussmann. c'est ça Napoléon am na lu mu ci def. mais ça a été douloureux. c'est ça ni ñu ko defee donc parce que bàyyi ba nit ñi dëkk. ba pare nga jox di restructurer. loolu c'est pas la bonne formule. moo tax ñun ñun on a pris l'option de faire valider nos plans. au niveau le plus élevé. Mm. Euh, pour que plan yooyu après boo koy déroulé dafay yomb. Mm-hmm. day dimbali baykat bi nga xamante ne daan bay ba mu yàgg ne damay lotir day dimbali également pour et puis day yokk valeur suuf si. c'est ça day yokk valeur suuf si ndax. Mm. tëju def benn alignement rek jaay sa suuf. Mm-hmm. alors que suuf soosu boobu buñ ko inscrit dans un PUD bu jaar yoon. Mm-hmm. foo ko doon jaayee quatre cent mille di nga ko jaayee quatre millions. donc moo tax même c'est dans l'intérêt me des usagers traditionnels. d'avoir ce plan ces plans euh, validés. ñu méngoo sax ak jamono ñu méngoo ak jamono. Mhm. génne les grandes avenues génne yoon yi les espaces de vie. Mhm. les cadres de vie ak yëpp quoi. a <laughs> très rapidement ban mooy seen plus grand projet instant yi nii. waaw plus grand projet mën naa ne déjà y a nos projets que j'appelle nos projets structurants. Mhm. parce que man mairie Diass tey lan la war a dundee dans vingt ans. Mhm. c' les activités économiques. waaw les zones yi nga xamante ne la zone industrielle la zone logistique la zone de service. Mhm. mais également des lotissements autorisés pour les populations. surtout les populations de la localité Diass parce que quand même surtout la jeunesse. Mhm. waaw jeunes Diass yi voilà ak dëkk ni ñuy dëkkin bi. waaw dëkkin bi ak dëkkuwaay. c' est important en tout cas di la remercier bu a baax lu tax ñu tànn jas ñëw fi nag euh, mooy jas euh, wax na ko sànq moom mooy buntu département bu Mbour euh, ci jamono ji nag ak infrastructure yi ñu fi teg bokk na ca donc port bu ndaayaan bi fii aéroport bu jas mais yeneen nag yeneen i zone yi nga xamante ni c'est des zones économiques tax na jas nekk léegi donc des terres très prisées loolu kon moo nekkoon waxtaanu tey bi di leen fàttali tamit mbokk yi ne dinañu amal fii ci Mbour ci mois de novembre euh, événement bu am solo euh, boobu tamit dañoo bëgg a def li nga xamante ni moom mooy euh, donc promotion des terroirs parce que jot na tey jii ñu dem ci suñu département yu gën a ruqe ci Sénégal pour xool la fa ne la fa baax ñu mën ko rek daal di wane wax ñi ci nekk mën ngeen dëkk Dakar mën ngeen dëkk Mbour mun ngeen dëkk feneen ak feneen ci Sénégal ndaxte mën nañu teg ay dëkk yi nga xamante ni moom mooy des villes comme je l'ai dit intelligentes yi leen mën a recevoir mën a kon na euh, di rek euh, def seen dëkk demoon nañu benn reportage Saint-Louis ak waaye seen HLM gis ngeen lu ñu fa rek daal di def tey ñi ngi fii ci jaas noonu nag la ñuy wëyee euh, pour def li nga xamante ni moom mooy euh, donc euh, promotion bu département de Mbour loolu nag ci weeru novembre lay nekk incha allah dinañ ci ñëw ci yeneen i xibaar di remercier bu baax a baax suñu sponsor leader Sococim Industrie ciment bi nga xamante ni duma ko tay di wax moom moo tabax Sénégal laata indépendance ba négé ni di leen gërëm bu baax a baax gërëm moomoo mi nekkoon ci caméra bi ak ki nga xamante ni moom mooy of mbay tafajum ci montage bi dig daje yoon incha allah seen émission sama kër. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci gune kër gi.